japp ni tey bés bu mag la ci doxalin bi ñu bi nga xam ne président diggal nañu ko euh, bi ñëwee ci ministère bi daf ñu ne xoolaat leen le plus rapidement possible le code de l'urbanisme et de la construction ba ñu méngale ko ak doxalin bi ñu bëgg a taxawee. Euh, moo tax tey ñu ak ministère des finances ak euh, suñu collègue secrétaire d'État chargé du logement ñu boole suñu doole ñun ñëpp ñu ne nañu commencé sumb loolu. ci ñu jox leen aussi délai bu nga xam ne day xaw a gàtt parce que euh, président dafa instauré mode fast track te ñu war cee mën a gaaw te mënoo def dara ci liggéey te teguloo ko ci yoon teguloo ko ci droit droit boobu moo moo moo moo tënku ci ñaar ñaari code yooyu code de l'urbanisme de l'urbanisme et de la de la construction tey ñu mu nekkoon bés bu njëkk bu nga xam ne dañuy installé comité technique bi comité technique bi commencé njël commencé liggéeyam ci yaakaar nañ ci ñett ba juróomi weer Euh, du ministère urbanisme rek tay gis ngeen ministère des finances lu tax mu tew fi parce que lu bari domaine ak cadastre ci moom la défendre, mais aussi mbir mi du mbirum mbirum rek ministre état aussi am na ay promoteur am na ñuy liggéey si suuf si ñu ku ci nekk ci sa wàll nga mën ci indi sa loxo mais boo ci indee sa loxo ba pare ñu tënk lu nga xam ne ñu jébal ko président de la république après président de la république jébal mu nekk mu nekk loi bu nga xam ne ce sera applicable à tout bëggee loi nag ñit mën cee jàpp il faut que acteurs yëpp ñu mu intéressé ñu soobee buñ ba demee ba pare lii danañ ko waxtaan ak ñi nga xam ne ñooñu intéressé ku nekk wax ci xalaatam ñu tënk xalaat yooyu jox ko président de la président de la République ñu yóbbu ko assemblée nationale.